kàddu mën naa njëkkee ci ki nga xam ne nag moo di Bougane Gueye Dany jiital gëm sa bopp moom euh, ci boobule poste mu nuy xamal ni caaro caaroy 44 oui mais dis-nous d'abord la vérité sur les 86 martyrs 2021 2024 et sur le avec Macky Sall Sonko tiyaat trahi le, pan, le panafricanisme, euh, tu n'es plus apte à parler pour les Africains, tu as trahi la cause panafricaine, tu es un adepte di euh, du du renoncement tu es un client de l'abandon de bon causes loolu mooy sorte bi nga xam ni euh, Bougane Gueye def na ko si si si tënk di ñu xamal ni rek kii di Ousmane Sonko lu mu war njëkk leeral mooy li nga xam ne nag mooy ndaw ñaax seen bakkan ci manifestation yi dalee ko 2021 jàpp ci 2024 waaye Ousmane Sonko leeral protocole bi nga xam ni dox na si diggante moom ak kii di Macky trahir na li nga xam ne nag moo di panafricanisme euh, euh, tey jii amatul maqaama pour wax ci li nga xam ne nag moo di ci ci wàllum Afrique nan nga mën jàngatee poste bi nga xam ne wala réplique bi euh, njiital gëm sa bopp def. bon xam nga bugaan moom ay mbiram <laughs> wax dëgg yàlla duma ma la nëbb sincèrement nag pour pour pour bëggatuma bëggatuma di wax ci bugaan ngay dani du dara nag. mais mhm. sincèrement mais nag dinaa wax pour yow 313. waaw di di di di gis wax mais dina ñëw si Madiambal Diagne aussi. mais mais mais damaa décidé woon. Mhm. damaa décidé woon lu jëm ci Bougane Gueye Dany. dootuma mhm. ca waxati. xam nga lu tax ma lay wax lool. Bougane ndeysaan <laughs> yàlla may na ko leen am na am na am na am na bayre une. <laughs> amul bayre ñu ko parrainé <laughs> ay Bougane Dany yàlla may na ko moom bayre une. ba bu defee benn poste sax. xëy nekk à la une. nekk à la une. ah mais mais mais mais. la plus de quarante journaux yu génn. jàppal ne Bougane douze yi bind nañ ko titre nañ ko man loolu laa bëggoon xam quoi lan la man damaa bëgg a xam Bougane ban bayre la am. Mhm. bu nekkee parrainage Bougane amul bayre bi. Mhm. mais bu nekkee ne Bougane def na poste wala Ousmane Sonko def na bu génnee bu répliquer rek. Mhm. loolu mooy nekk une. xam nga lu muy signifie. mooy réew mi moo raflé opposant te Ousmane Sonko bu génnee wax wala son excellence Bassirou Diomaye bu génnee wax foo ko am ku répliquer pour suba ñu ne mbir yi xaw na tolloo. Mhm. dafa am lenn loo xam ne da koy metti mooy bu ñu nekkee ci réew. Mhm. xam na bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ne xam nga lu tax ma lay wax lool. Mhm. son excellence dafa def entretien avec des journalistes. waa ji xaarul sax le lendemain mu répliquer xam lu taxoon. ci dimanche bi da doon bañ lënd bi ñu xëy. journaux yëpp nekk unu Diomaye wala hmm. Sonko. daa mel daa xaw fiir ci loolu. léegi moom foog mu jéem a tëkkaleeg ñoom foog mu génn wax. Hmm. mais man dama koy ñaan rek bayre bayre bi buggaan am bayre gi mu am bu waxee dara. Hmm. ñëpp def ko une ngelawaay bu ko amoon si parrainage jàppal ne doon na doon na fi candidat. léegi dañu ñëw si kàddu buggaan si li nga xam ne moom la wax. sànq yaa ngi naan Bougane li ngay wax tuy tuy tuy may compter. Mhm. jàppal ne wax na plus sama juumale plus de cinq tuy. Mhm. maanaam moo ngi tutuwaaye Ousmane Sonko. Mhm. yan kàddu la yëkkatee. moo di Ousmane Sonko danga ngaa askan wi. Ousmane Sonko xale xoolatuñ la panafricain xoolatuñ la. waaw ma tontu ko. entre Ousmane Sonko ay Bougane gay Dany kan hmm. moo trahir askan wi <laughs> tey foog ñu jàkkaarlu Bougane Gueye Dany waxanteeg moom xam hmm. sa waay hmm. entre Bougane Gueye Dany et Ousmane Sonko kan moo trahir askan wi Bougane Gueye Dany moom moo trahir askan wi Bougane Gueye Dany moo gis ci réew mii di Sénégal Macky ak ña mu àndal ñu jox leen mille milliards Covid 19 ñu lekk ko askan wi di laajte seen xaalis warul rees. mu pàtt ca làmmiñam Ousmane Sonko jën ne ko xaalis boobu dañ ko war a leeral. Bougane Gueye Dany si réew mi di Sénégal au moment où Macky sàll moo ngi rey quatre-vingt-six personnes yi. yi nga xam ne moom lay tudd. Ousmane sonk jug ànd ak ñoom di xeex ngir libérer réew mi. Bougane Gueye Dany yéeyu si yàbbi du doomam du rakkam. du kenn ku bokk gëm sa bopp kuñ sa jàpp. au moment u si réew mii di Sénégal ñu wax ko waxaat ko ci kaw. Mhm. ñoom ñi di woowee seen bopp opposant benn góor a fi nekkoon doon takk ceinture. Mhm. la waaja waxoon fu ma jaar ku fa jaar tax ban. Mhm. foo Ousmane Sonko jaar ak Macky Sall Bougane Gueye Dany mënu koo jaar ndax nit kuy jooy la. moom moo trahir askan wi au moment u Ousmane Sonko fer na fas sa waay ñu tëj ko cinquante deux jours ñu tëj sa doom ba mënul am BFM. sa waay ñu jàpp la yóbbu la kaso caaxaan na ay wàllum euh, maanaam vol de téléphone sa waay jigéen sor ci boppam ngay def sa caravane ñëw ñu jàpp la mm-hmm. ñu jàpp say doom say rakk say mbag ñu rey say jege ñaale mm-hmm. yàq sa liggéey ña nga àndaloon ñëpp mooy lan mm-hmm. dangaa bëggoon réew moo may baax góor googee tey jaayante tey ba askan gi tey ñoom bu ñu mënee takk seen tur di wax c'est grâce ak Ousmane Sonko il temps ñu waxanteeg ñoom ci réew mi bi réew mi di Sénégal am benn buur ne Macky Sall la tudd. Mhm. amul woon mindee si réew mi kenn ko amul yëkkati baatam di wax. bu mhm. Bougane Gueye Dany fan la nekkoon moment boobu. tey la wax neex ñoom ñuy wax. Mhm. je ne suis pas pro Ousmane nekkuma ku koy défendre. mais sa waay boo gisee nen da nga naan nene ngi nii. ñooñu di xeex. ngir Macky Sall jóge fi moom ak ñi mu àndal. ñenn ñi nga xam ne amoon nañ divergence ci wàllum politique. ñëpp ne kii nañ def le tout ba mu jóge fi des candidats recalés àndoon dem waxtaani xam ne mënatuñoo dem docteur Abdourahmane Diouf Aminata Touré. ñu ne changement la ñu bëgg dañuy ànd coalition Diomaye au moment où réew mi yëpp ne Amadou Ba ak Macky Sall ak lu bokk benn bokk yaakaar dafiy jóge ñëpp jël seen responsabilité yow nga taxaw fee di tappale naan deuxième tour. au moment où Sénégal nekk ci ay jafe-jafe ñëpp jël seen responsabilité Bougane Gueye Dany fan nga nekkoon. entre mhm. Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany kan moo trahir réew mi Bougane Gueye Dany la moom moo trahir askan wi. Mhm. moom lañ doon xaar mu jël ay responsabilité moom tam moom moo doon wax ne anti système la. Mhm. moom moo doon wax ne réew mi dafa war a baax. moom moo doon wax ne kenn sexalu ko tàngal mu ne bu heure tànn jote jàppal ne Ousmane Sonko laay àndale ji. waaye ñëpp di xaar changement ngay xaar deuxième tour tappale fa la tàmbale mhm. réew nag ñaar la fekk ba ñu choisir choisir la buñ ko waxee buñ ko waxul mhm. Bougane Gueye Dany kaawu Amadou Ba la tànnoon ay askan wi les cinquante quatre pour cent Bougane Gueye Dany da leen mhm. si réew mi bu ñuy wax réew mi bu opposant di wax d'accord naa na Thierno Bocoum wax de mais Bougane warul wax ci pénc mi la gelawaar waxoon mënatuñoo xool kenn ndax gàcce. Mhm. bugaan bu nekkoon ne am na tuuti vergoñ wala dara lu nekk ci moom yaakaar naa ne waratul sigg di wax. Mhm. dafa raté histoire. histoire dafay jàpp ne. moom ay doomam bu ñu màggee man sama doom màgg ma ne ko man jëloon naa samay responsabilité moment bii Macky Sall bëgg ñi di ñu sonal. Mhm. takkuñu buumu jàmm waaye bugaan lan lay wax ay doomam deuxième tour laay toog di xaar. waratul wax ci réew mi beneen bi. dañuy wax si wàllum li nga xam ne moo di justice. Mhm. ndax dañoo trahir ndax tey dafa am protocole boo xam ne dafa juddu. Mhm. Ousmane Sonko xam na bu baax a baax moom ak son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay mhm. lépp lu ñu def ci réew mi ba justice googee tegaatuñu ko wala réparé wuñu ko askan bi ci ñoom lañuy ñu njëkk a dal. Bougane bu mu yëkkati di wax de moom lii du ay waxam. xam nga lii wax ñan la. ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakket ñi nga xam ne xeexoon nañ ñooñu bu ñu waxoon mu safe ñi nga xam ne bu ñu jàppoon jàppoon nañ seen i mbokk ñooñu ñoo war a wax ak Ousmane li ñu diggoon anam. Mhm. waaye pas ab tappalekat goo xam ne bi nit yi di takk seen cuir yow da nga ne nee ngay taxawee. daa benn dana commencé politiser mbir mi. mais ndax politiser dina am wala du am léegi nag xam nga lu fi am dañoo toll si réew moo xam ne. Mhm. sa waay réew mi réew mi. Mhm. mënuñu koo defar. ba pare ña nga xam ne ñoo ko yàqoon ñu bëgg leen fee jiital. man damaa gëm ne dans peur de temps justice dinañ ko defaraat dinañ ko tabaxaat dinañ ko defaraat. bu ñu amee ñëpp dama gëm ne am amnistie bi si boppam dafa war a deñ. damaa gëm ne ne bu nekkee ne protocole mësul am. certes protocole mën na am si boo xam ne nii mën nañ wax ne Macky bëggatul Amadou Ba bëggatu ko woon. li mu def yëpp dafa saboté Amadou Ba. Mhm. ndax xamatul fan la doon teg Amadou Ba. mais man dama gëm ne ñi ñàkk seen bakken sewaay nag day yomb lool. Mhm. waaw nervi yi Pape Abdoulaye Touré may faju ji ca France nee nga xam ne yàqal nañ ko jàngam. Mhm. loolu dañ koy bàyyi mu sedd. déedéet. 86 personnes yi ñàkk seen bakkan. sa waay ma wax la lenn mbaa xam nga ko bu baax a baax. Ousmane Sonko moom ak ña mu àndal ñoo la gën a xam. Uh-huh. tant que réglé wu ñu problème justice si ñuy luubal alalu askan wi. Uh-huh. ak ñi ray askan bi jàppal ne ñoom dañ fi wàcc. dañ fi wàcc moom. mais nag ma wax la ko leen. Uh-huh. du Bougane mooy joxe son yow tegal Ousmane nga teg. soo mais mais mais mais léegi nag c' est xeetum politique. ji nga nga baal ñu baal ma si kàddu maa ngi jégalu. sol sa dàllu baay taxul nga doon sa baay. Mhm. sol mbubbu Ousmane Sonko. Mhm. taxul nga doon Ousmane Sonko. tey la wax neex nag. Mhm. tey la nga ne nga ne mais mais mais Daouda est-ce que c'est pas contradictoire mu wax ne Ousmane Sonko dafa trahir idée wu li nga xam ne nag moo di panafricanisme tey ji booy xool parti bi di Pastef daanaka nekkatul au niveau national au niveau international ñu ngi am ñoo xam ni dañuy teg seen parti politique. di ko jëlee ci li nga xam ne nag moo di concept bi di Pastef Sénégal est-ce que foofu Bougane xawul def benn contradiction nee na dañoo trahir panafricain yi. Mhm. dégg naa ko mu koy wax. moo tax keroog bu ñu def conférence presse mu sol euh, yére Cheikh Anta Diop. mu sax <laughs> mais moo tax ma ne la euh, euh, sol sa daalu tax taxul nga doon sa baay. Mhm. ñu baal ma si wax. la fekk ngay Ousmane sonk sonk lu taxul nga doon Ousmane sonk daanaka yooyu si Sonko lañ ko daan gisee muy def conférence de presse jël benn photo def ko ci. jingal mhm. dinañ ñëw foofu après. Mhm. mais waa ji daa mbappat. Mhm. Eh, askan wi pour ñu gëmati la. nekkatul da ngay bàyyi ba élection ñëw nga yor sa juróomi oto sa huit oto. Mhm. kenn mënatul jàll on dirait que benn mag man dal na ma si lool. Mhm. Bougane di romb Touba ma foog ne eh, ma xoola Amadou Ba ñëw nakate Bougane ñëw. Mhm. mais tey doon doon doon li mu bëgg a xëccu. da koy travail da koy liggéey pour am ko mais léegi si wàllum panafricain yi muy wax ne bon da leen yi rek yooyu. kan moo amoon fitum. jàkkaarloog CEDEAO. nga wax hmm. leen kàddu yi ngi leen di wax. Hmm. exactement. waa AES dañ ne. Hmm. dañuy génn biir CEDEAO Sénégal ne. day des biir CEDEAO mais dañuy defar CEDEAO bi ñu bëgg. Guy Marius Sagna déggoo ko. daanaka taxawaay boobu la am fële ca ca parlement bu CEDEAO kii mën nga wax Guy Marius Sagna te waxoo Ousmane Sonko. déedéet. mais Guy Marius Afrique yëpp fi ñu nii ñoo koy tàccu di ko jaajëfal. ndax kàddu panafricain yi mu fa yëkkati. Mhm. ngir kàddu Afrique bii mën a moom boppam. Mhm. mais bu nekkoon ne Ousmane Sonko dafa trahir naar bu ndaw lu mu wax lu ne si bu mag ba la ko jëlee. Mhm. déggoo ma de. Ousmane Sonko ak Jomaay ñoo yónni Guy Marius rawatina euh, Guy Marius Sagna boo xam ne taxawaay boobu la mosoon am. mont yu baax yi ñoo bokk heure moom montre baaxul. Bougane dañ ko koy rappeler. mais Mabouba Diagne. avant-hier. barki dem rek def na ko seetlu ngeen mu jàkkaarloog mais kàddu yooyu ku ko mën a yëkkati. <laughs> mais kooku kooku est kooku trahir na askan wi. déedéet. mais Diomaye kàddu yi mu yëkkati ci Jeux olympiques bi. foogoon nga ñemee takk sa tubay dëgg-dëgg. pour jàkkaarloo tubaab bi wax ko juste rek pour wax la ne. Mhm. Mélenchon bi mu ñëwee fii Ousmane Sonko kàddu yam ko yëkkati. Mhm. wax ma ko. Mhm. Diomaye Bougane ñeme na ko yëkkati. Macky Sall ñeme na ko yëkkati. nañ dellu si gannaaw ndax yeneen président yi ñeme woon nañ ko yëkkati. mais tey ñooñu. ñaata ndaw la ñu nekk di inspiré si Afrique. ci ñoo xam ne jël nañ parti bi di Pastef ànd ak moom. ana Kémi Séba ba doon wax ana Nathalie wala keneen ak keneen doon wax. Nathalie Yamb. Mhm. tey est-ce que tey Sonko ak Diomaye nekk ñu di leen rusloo. Mhm. mooy moom sa bopp. CEDEAO bi nga xam ne CEDEAO France la. Mhm. loo ci gisee après. Guy Marius Sagna boo xam ne dañ ne dañ ko ci sanction loo ci gis ma Buuba Jaañ mi am fitum wax leen dëgg. boo waxee ma Buuba Jaañ da nga naan Sonko ne Diomaye. mais est-ce que ñooñu trahir nañu africain. non au contraire. Bougane ginnaaw gi mu trahiré <laughs> askan wi. Mhm. trahir ay doomam ndaxte amul histoire bu mën a nettali ay doomam fi ñu toll nii. Mhm. en deux mille vingt bokkoon naa fi ñuy xeex si réew mi ba buumu jaam jóge fi. Mhm. du ca bokk de au contraire danaan leen moment bi askan wi di tànn dama doon tappale. noo xaar deuxième tour. peut-être la koy fekk. <laughs> mais mais mais ñi def sortie daanaka du Bougane kese. journaliste bii di Madiambal Diagne te ngir bu leen ma waxatee ay wax moom bëggatuma ay waxam ndax ñun ñun ñoo koy may bës quoi ñun la ak uni. non léegi nag imagine ay kàddoom rek. douze douze mais maanaam douze douze douze journal bind nañ tey ci Bougane li mu wax yow amoo bayre pare naaf waaye am nga bayre journal. ah li mu def ci journal yi bu ko defoon ci bu ko defoon sur le terrain askan wi ànd ak moom. <laughs> vraiment. yow mën a am mën a am signature waaye mën nga am man nga am ay signature journaliste <laughs> du journaux <laughs> mais mais mais mais si journal yooyu nii ba tey gis nga Madiambal Diagne aussi euh, moom lu mu wax nee na euh, à chaque fois que président Bassirou Diomaye Faye se rend en France ou même dans un quelconque autre pays son premier ministre montre ses états d'âme il ne supporte manifeste euh, manifestement pas que président ait des honneurs langage n'est pas digne